teewaay la boo xam ne tey euh, foo kon natt ci njàqare ak ci tiis weesu na foofu. Mm-hmm. waaye nag euh, yàlla moom bu bu bu bu bu soxlaa. jàmm ñàkk. Mm-hmm. te nag wax dëgg yàlla looloo wara suñu teewaay bi fii. Mm-hmm. sëñ Modou ndax mos na la tëgg. sëñ Modou waaw tëgg na ma tëgg na ma ay combat sama combat moo ko tëgg nee naa sëñ Modou néew na mbëru jaaru jooju sama combat Abdou Diouf sama combat Samba Diagne fële ca Dagana. Dagana waaw yàgg Samba Diagne Samba Diagne yal ko yàlla yërëm. Samba Diagne boo écrire waalo. bari na combat yu bëri moom ko moo ko tëdd. Mhm. xam nga moo tax tey ah benn dañuy wax ni làmb ji ab garab la waaye ab banqaas bu rëy moo ci fax tey ñun leer nañu ëhlu làmb pour ñu amati ku mel ni sëñ Modou ñaa du yomb dañ dañ koy wax dañ koy wax le promoteur de l'alternance léegi ministre wax na ko léegi nee na tey am na ay jamono li muy dégg ci la promoteur de l'alternance ci bande annonce yi du ko dégg fenn te amoon yërmande ci mbër yi amoon defoon mbër yi nit ñi tey amoon yërmande ci moom génération bu ndaw bi moo taxoon tey da doon jël ba fi gën a sori ci Sénégal ay Tambacounda promoteurs yi am na ñu bëri ñoo xam ne xalaatuñu ko parce que coono bi la boo gisoon boo déggoon combat bu génn territoire Dakar rek dem ca àll ba ay Kédougou ay ay ay ay Tambacounda Casamance ak sëñ Modou la. gin gi neew àll bi la gënoon àll bi la gënoon génn àll bi la gënoon parce que doon xam ne dakaar da doon saturé yenn week-end yi te loolu tey ba fi may wax ak yow nii amul benn promoteur bu bu bu bu tàng bu taxaw tàng du ko parce que làmb ji yaakaar nañu Dakar la te làmb ji dañ ko war a décentraliser tasaare ko fépp ci région yi yëpp région yi gën a sori ci Sénégal làmb dafa war a dem te sëñ Modou ci loolu la doon dox moo tax mu doon ëpp chaque année moo doon ëpp ay combat te loolu ñun mbëri yëpp dañ ci doon gis suñu bopp parce que nag am na ay mbëri Dakar te ku la la mbëri nekk boo demee ci région yi di am na ay mbër moo njëkk a créé dix combat xam nga Ameth Dieng moo ko créé woon di ko def bi mu ñëwee la ko bàyyeeg moom bàyyeeg moom mu continué ko xam nga def ay tour loolu nag tey moom jëmm jooju nag bu nekkee nag moo doon produire jeunesse bi bo booy ndaw moo la doon doon moo doon produire ba ba ñu dégg daal yi kon kooku tey bu jógee bu jógee ci ñun wax dëgg yàlla ah, ah, tis la tis lay doon. bonne relation nga amoon nag moom à part mbir sëñ Modou daanuñu woon ah, daanuñu Modou sëñ Modou xam bu amul combat bu làmb amul rek du ñëw làmb. sëñ Modou nee naa làmb nattu la woon ci moom rek waaye nekkul woon koo xam ne. addinaam bi parce que dafa yoroon métier xam nga moom bu tëggul làmb moom ma nga nekk si ay activité am sëñ Modou man est-ce que mos naa dox ba dajeeg moom mosu mosuma gis nii ci mbedd xanaa ci événement yi wala yooyu nit la ko koo xam ne nit ku effacé wu loon am yar am teggin. te ko dégg mu wax wax ju ñaaw. yar yar ak teggin dafa nekk ci boo xam ne milieu làmb. milieu defante la mbër yëg milieu la boo xam ne boo ma dëggee ma dëgg la boo ma màttee ma màtt la bu ma defee ma def ko yàlla natt ko mu nekk ci métier boobu te yàlla xam ne de du milieu am milieu ñu ñu fi teew yëpp xam ñu milieu la boo xam ne tey defante beeg buuxante bi ñàkk jégalante bi daf ca bari. en tout cas mais est-ce que dëgg est-ce que loolu waaw mooy lan mooy mooy parfois da ngay koy indi. li koy indi parfois da nga fay da sa da ngay sa jikko sax ci biir am jikko am jikko bu tranquille boo xam ne sax am na ñu nekk ci biir làmb te làmb du seen domaine muy mbër muy mbër muy promoteur parce que làmb c'est toute une corporation làmb branche yi xam branche yi mu ŋànk moo bari làmb ménager traditionnel làmb mbër ñooñu ñëpp tey parfois yàlla dalay nattu nga bëgg métier bi dugg ci te yàlla xam ne métier bi ci yu mu laaj newul ci yow parce que bëri na ñu ci nekk ñoo xam ne tey du làmb du seen domaine am nañ ci ñoo xam ne làmb milieu la boo xam ne li li li ci li li nekk ci biir kenn kenn xamu ko. benn ci mën benn ci parce que am na loo xam ne benn euh, milieu la boo xam ne intérêt yi dafa wuute parfois da ngay dugg ci domaine boo xam ne euh, euh, dugg ci loo xam ne tey sa intérêt da nga koy da koy da koy da nga koy partagé ak ñeneen mu nekk métier boo xam ne tey nii. boo amul yenn retenue yi boo ci duggee mën naa yàq sa jikko parce que buuxante beeg defante bi ni dalay def ni dalay xool sax nga xam ne kii tey na muy defee ak yow sax yow boo ko toppee sax da ngay mel ni moom te sëñ Modou yàlla nattu woon ko mu nekk ci mel ni boobu mosoo ko dégg sëñ Modou fii yëpp mën nañ ko teewee nii mosoo dégg mu yëkkati wax bu ñagas man yàgg naa dégg yàgg naa gis muy atte ay nit yàgg naa toog dégg mu naan ay diw bu ko topp ma ma teg sama mu nekk nit ku dal nit ku mais yar googu ak téye googu ak baax googu bu demee fële ci àllaaxira dina xam ne yàlla moo ko gën a baax foofu. looy dénkaat promoteurs yi fi nekk. waaw c'est des frères. tey mooy dama koy commencer par ci mbër yi balaa maa wax promoteur damay wax ci mbër yi ba pare parce que tey mooy li ma la wax rek làmb wax dëgg yàlla euh, dafa nekk métier boo xam ne wax dëgg yàlla commencé ko ci mbër yi mooy tey dañu war a nekk benn dama wax Sénégal actuellement nii waxee fi sax dafa naqari dafa métti jamono ji parce que période bu sensible la période la boo xam ne boo waxee ay Ablaye tàccu la bu arrangé wu dem dem ba dem la mais est-ce que nopp du solution moo tax man la ku ci wax na nga jël say responsabilité nga xullal xaq xam li ngay wax nga teg ko ci xullal xaq walaw kaana mu ran amul dëgg alalu yàlla la boo ko yëkkatee wax ko am sa conscience tranquille li ma wax ni yalla rek moo tax ba wax bo teud da ngay nelaw. mais du bu nek damay wax pour pour lo neex yow Ablaye wala Demba. waaw su ma tëddee doo nelaw damay xam yow je suis tu es un vrai hypocrite. da ngay wax da nga wax nit la koy waxal. mais ku ci wax les leaders. barki Demba rek gaay kuma ci wo di waxtan ak yow sama cadeau lolou la ku ci wax jamono ji waxe fi da da yombul. mais ku ci wax na nga wax sa akulay taala fi rew mu tollu ak jafé jafé yu ñu dund ak. tey waxante bu ñu ku nekk yaa ngi. ku nekk ku nekk yaa ngi uñu sa ayib kon nag dëkk bi fu mu toll dafa war a ne képp kuy leader na nga wax te li ngay wax nga seet ko segg ko parce que fii ak ay fan rek danaa fexe ñu gars yi ñoo association bi les leaders ñu xool ñu toogee waxtaan échanger pour def benn point de presse. parce que dëkk bi nag képp ku yàlla yor jox kàddu. nga toog na du ma wax.

xool ba nan la ñuy nan la ñuy tenir benn point de presse pour wax situation de bi incha allah.